Euh, di leen wax ñu ngi leen di jéggalu di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla jàmm yokk ci biir réew mi naataange yokk ci biir réew mi bennoo yokk ci biir réew mi ndax euh, olofi yi dañuy wax ne benn bopp kenn du ko xar te loolu dafa nekk loo xam réalité la ci biir Sénégal kon ñu ngi ñaan yàlla ñëpp àndandoo ñu nekk benn naam wute mënta ñàkk waaye nag lépp na rafet ndax kër sax boo fi duggee ñii dañu gisee nii ñii gisee ne le mais terewul ñëpp la rafet. diine ji également même chose bu ñu sañoon ñëpp dañu ànd di woorandoo di woorandoo di tëbëskendoo mais ñu xam ne Sénégal aussi moo bindoo noo nga xam ne yeneen réew yu bindoo wuñu ni ndax démb ak bërki démb li amoon ci réew mi mooy li ñu tuddee islam rek maanaam ay tarix rek ci liñ tënku woon jamono nag dox na ba am na ñoo xam ne naam ay jullit lañu comme ñun waaye nag xëy na ñoom tënkuwuñ ci tarixa ci neneen la ñu tënkoo kon loolu yëpp da xam dañ koy nangu xam ne li ñu ay différence la mais le eh, ñoo bokk li ëpp solo ñoo bokk diine ji ñoo bokk xibla ñoo bokk yanante bi ñoo bokk yàlla ñoo bokk lépp kon différence bu ñu ko nangoo rek xam ni kenn ku nekk am nga sañ-sañu doxal ni nga bëggee waaye lépp ci yàlla la jëm je pense que bu ñu ko defee rek danañ mën a juboo ci diine ji danañ juboo également ci wàllu doxalin àddina parce que réew mi ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko bokk ku nekk da ngay wax ni réew mi ñoo ko bokk kenn ëpp sa morom mais ci jëf ji nag foofu la ñu wute kon ci jëf aussi dañuy jëf jëfi koo nga xam ku bëgg réew mi la Euh, mu ngi mel ni rek waa ji nga xam dafa fekkoon ñaar ñu doon xëccoo këyitu ñaari junni kii ni maamoom kii ni maamoom mun leen jàppaleen ko mu xottee kenn ki ni ay ca keneen ki ni ko bu naree xotti ko bàyyi ko yow mun ko kon yow yaa ko moom kon réew mi ñiy wax ñun ñëpp ku ci nekk da nga naan da bëgg réew mi waaye ci suñu doxalin nag na ñuy fatte suñu bopp di jiital njariñu réew mi je pense que bu ñu ko defee rek te ñu delloo suñu xel xam ni ku nekk am nga sañ sañu wut ku nekk am nga sañ sañu laaj waaye kenn rek mooy joxe mooy borom bi sabala euh, euh, moom rek mooy joxe subhanallah moom rek mooy joxe ku ñu loolu la ñu gëm ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy wax kon ñu ngi baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla may ñu ñu delloo si suñu xel di ñaan également yàlla may yeneen Sénégal ñu delloo si seen xel ba ñu xam ni lu fi mënti am rek dañ ko daan nettali Senghor a fi nekkoon dem na Abdou Diouf dem na Abdoulaye Wade dem na Macky Sall fi nekk tey ëllëg dafi jóge dem dëkk boo demee noonu la ay maire fi nekkoon ay député borom kër yi sax ñun ñu nekk tey ay borom kër nekk ñu suñu baay ak suñu maam ñoo fi nekkoon kon foo nga xam da nga fay jaar di jàll rek da diir diir bi nga fiy def te du yàgg war dañ ko mën rafetal comme ni mu koy waxee toujours nañu rafetal soow mi duggee ko jabi maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax